situation bi lenn ci ay gox ci Touba di dund jamono ji itteel loolu teraanga Sénégal parti bi nag ñoom ak seen njiit di wuyoo ci docteur Abdoulaye ñaan amal tournée ci biir Touba gox yu ci mel ni Mbusoobe Daaru Marnaan ak Ndaamaatu ak yeneen sax gox ñëw nag ngir nemmeeku li nga xamante ni jamono ji moom la population bi di dund. dama gis euh, ay population maanaam ay nit yu ñu bàyyi bàyyi leen ak euh, seen naqar bàyyi leen ak euh, seen néew ju doole. Euh, te loolu du ren ay at yu bari la gis naa tiis gis naa ay pères de famille yoo xamante ne nii dañu génn seeni kër ñenn ñi dañoo génn sax dëkk bi te Touba di dëkku yërmande di dëkku Serigne Touba di dëkk boo xam ne boo fi ñëwee ak yéene bi nga fiy ñëwee ak li nga fi war a fekk euh, du lii te nag euh, loolu jàpp naa ne autorités yi ak état bi ci boppam ñoom ñoo bàyyi population bi noonu parce que lii dafa laaj ay investissement yu bari dem nañ foo xamante ni nee nañ ñu dañoo bàyyi seen i kër demaat kawlax am nañ ñu ñu bàyyi seen i kër demaat yeneen gox ci Sénégal te léeg-léeg dañ fay toog ay weer wala ñu toog fa sax at wala dara ngir jaaxle loolu nag métti na trop. bii mooy suñu ñetti yoon dañoo génn. bii mooy suñu ñetti yoon mhm. danoo génn benn yoon bi ñu génnee dem nañ dakaar suñu kër foofu ba am fa ñett ba fa an ñaari at door a defaraat def ci karawaat léegi xale ne karo bu fi fanaanaatee ba ëllëg day yàqu moo tax ñu obligé woote nit ñi dugg ci biir di tànk ñi dugg ci biir demal ba dugg nga xool ginnaaw bi mu saytoo terrain bi ba def constat jàpp na ni nag moom mii di docteur Abdoulaye ñaan bu tawee di population bi dinañu gën a sonn am loolu nag ñewantal si ñoom docteur Abdoulaye Niane fesal ko taw bi bare bareegul noonu day dafa commencé taw rek suuf si màndi na ça signifie que bu tawaatee lu bari dina gën a metti loolu nag te te kenn waxu ci dara actuellement dafa mel ni lii xewul euh, ñun donc boo gisee ñu jóg tey lii lañ bëggoon a won waa Sénégal won ne aussi ñun teraanga Sénégal lii mooy politique pour ñun maanaam ñëw ci askan wi xam li ñuy dund ànd ak ñoom ci seen mettit jéem ci ñoom dara wax ak ñoom rek déjà massawu leen foog naa dara la ci ñoom. moom nag jàpp na ni li nga xamante ni mooy tax jéye yu nu mel jóge fii mooy nguur gi dafa war a am programme bu baax wér te wóor waaye nag taf yëngal bi gis na ni day gën a lawal situation bii. il faut un programme d'assainissement à Touba programme boobu ay milliards la war a doon du taf yëngal wala jël naan deux milliards trois milliards non dañu war a évaluer besoin dëkk bi ñu def programme boobu deuxièmement itam il faut que ndox mi ñu koy utiliser pour des plans d'irrigation euh, agricole. autour de la ville de Touba loolu daal wax dëgg yàlla il faut ñu def ko bu ñu ko deful malheureusement nit ñi dañuy sonn rek di gën a sonn te loolu wax dëgg yàlla metti na. population bi nu seet si woon ñoom it rafetlu taxawaayu docteur Abdoulaye ñaan sant ko loolu te nag jóg ngir jàppale ko. si wàllu wii muy yëngu ndax nag am yaakaar si moom. dégg nga ku ànd ak sa doom doo jàq doo jaaxle kii mooy docteur Abdoulaye Niane. nañ jàppale suñu doom mu jëm ca kanam ndax ku jàppal kuy jàpp da nga jàppale sa bopp ku jàppale sa bopp itam tardé nga. bi muy ñëw nag ñëwaalewul loxo neen moom mi di Abdoulaye Niane indi na ay dund lu si ni ceeb jàppale leen ko eau de javel ngir nag ñu mën a xeex feebar yi tukkee ko si ndoxu taw yi ak nag mën a setal seen dëkkuwaay visite bi ñu ngi ko tojee ak ziar bu nu amal si Daaru Xudu seeti woon lenn si kilifa yi